mbokki internet yi mbokki Salam 7 TV yi waay mën a ne ci réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a sell muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu dellu siwaat nañ rek ci seen jotaay bi ñu baaxoo ànd ak yéen saa su ne mu di nuuru nujum mu xam-xamu biddiw leen ci leeralal biddiw yi horoscope yi tabia yi maanaam nature yi couleur yi bisi sarax yi yëpp rek allah ñu leen koy leeralal tey ñi dikk ci ñi juddu ci le 23 juillet ba 31 juillet dikkoon nañ ci le 1er juillet ba deux juillet kon tey dañuy dikk ci 23 juillet ba 31 juillet dikk ci mois d'août dikk ci mois de septembre incha allah kon képp ku juddu ci le 23 juillet ba 31 juillet sa horoscope dafay nekk lion sa biddiw nekk samsu lion mooy asat sa biddiw nekk samsu samsu samsu mooy soleil sa couleur nekk bleu sa tabia nekk naar yu naar yu mooy sawara sa rawaxaan safara lay nekk sa jour loolu moo aju ci képp ku judd ci le 23 juillet ba 31 juillet ñi dikk ci ñi juddu le 23 août ba 31 août ñooñu seen horoscope dafay nekk vierge vierge mooy al seen biddiw nekk otaarit otaarit mooy mercure <coughs> seen couleur dafay nekk gris seen tabia dafay nekk trois bi suuf maanaam seen nature suuf lay doon seen jour àllarba lay nekk loolu moo aju ci képp ku juddu ci le vingt 23 août ba 31 août ñi dikk ci ñi juddu ci le 23 septembre ba 30 septembre ñooñu seen horoscope dafay nekk balance balance mooy al mizan seen biddiw nekk zohrata zohrata mooy Vénus seen couleur dafay nekk vert seen tabia dafay nekk xawaa yu di ngelaw seen rawxaan ngelaw lay nekk seen jour nekk àjjuma loolu moo aju ci képp ku judd ci le 23 septembre ba 30 septembre incha allah incha allahu rabbi boo déggul sa date de rek nga dugg ci biir chaîne YouTube bi ñu topp ci YouTube bi nga dugg ci biir chaîne bi dem playlist di nga fa fekk vidéo yi def ci wàllu astrologie yëpp incha allah di nga fekk foofu sa date de naissance incha allah rabbi kon ñu ngi leen di tàggu foofu rek di leen ñaanal jàmm salaam xéewal ak sutura yàlla na ko yàlla tuur ci askanu sunu gaal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërë ngeen jëf